dalaba dóor na arrajulu waa ji assaariqa aji sàcc ja ci kanam ñu ne tadaaraba dóorante na arrajulaani ñaari waay ya xasana rafet na mooy neex na aljawu jaww ji fee ñu ne taxassana rafet na aljawu jaww ji ba tey neex na rek rawdiya gërëm na alwaalidu waajur wa xalibnihi walis doomam ju góor ja fee ñu ne istarda sàkku naa gërëmloo alwaladu xale ba abaahu baayam xadi ba yunku na rek la muy dóox na ak zaxaru gannaaw ga xadi ba képp lay doon mu wal biir jum def rek numéro alif ci gannaaw xaagi waaye amu ci xadi ba rek la ñu def fee ih daw daba nunk na muy dóox na ak zaxaru gannaaw ga mu jàll ci albaxas ku lu misaal yi bépp misaal min am si la xiir ci misaali xaaj ba al awali bi aj jëkk yees tamit dana làmboo xalaa fi ilin ci fixal maadin buy maad xadadu ahruf yi bopp limbu arafam ya talaasat ñett la wahaasa tel yi aqallu xadadin mooy gën jaa néewi ab lim mumkin buy aji jàppandi fi xurufil afxaali ci arafi fixal yi fa isaa wujjida ne fekkeef na fixaloon fixal wa kaana te nekk ahrufuhu arafam ya aqalla di yées min talaasatin ci ñett kaana kon nekk baaduha lenn araf ya mahdofan di lu ñu asaf boo xoolee misaal yi nga weesu te nga xool ci ndeyjoor rek liñ bi ci ndeyjoor rek nga gis ne misaal mu ci ne ëmb na fexal boo xam ne maadi la te it yetti araf la niki bu njëkk bi fahima moo fa nekk ba ca topp xamala ba ca topp laiba boo xoolee ba jëm suuf nag ba ci hadiba yépp rek ku ci nekk fexlu maadin la te it di ñetti araf ñetti araf yooyu nag nee na jàppal ne fexal lu néew néew ay araf man ñett ñett moom fexal mënu koo manqué soo gisee manqué ko xamal ne kon daa am lu ñu fa dagge rek noonu waaye ci cosaan matoon na ñett léegi boo gisee ay watul wala xi fegal wala li méngal dalay muru ne fexal la muy lamar te nekk benn araf fekk li daa bàyyi ko ci waliya xi bàyyi ko ci waxaa wattu na xi bàyyi ko ci waxaa fegal na xam ne kon dañ caa dëgg rek waaye fexal moom ci cosaan mënta manqué ñetti araf wal ahrufu araf ya ak talaasat ya di yet fi ay fexalin ci bu mu ci fexal min am seet xismi ci misaal xaaj ba al awali ba jëkk xoroofun ay araf lañu asliyat ñu ko jub cosaan asliyatun bi dalili ànd naa ci tegtalu naka nun ida xasaf naa bun daggoon waaxidan benn min xaa ci araf yi kalfaayi ni ki faaga min fahima ci fahima daaxa kon sànku lafdul fihli baatu fexal ba wa maanaahu ak mahnaama fa jamiu haadihi l afhaali mboole mi day fexal isan kon laa tashtamilu duñu làmboo illaa xalaa xoroofin ndara ci ay araf asliyat ñi ko josaan asliyat ñi ko jug josaan fa hiya ñoom xaaliyatun aji wéet lañu wa wa mujarradatun te luñ rafle lañu min ay xarfin ci boobu ci araf saa'id bi aji yokku xalaa usuliha ci seen cosaan ya wali daalika ngir loolu yu sàmmaa def na tudde kullu fi'alin bépp fi'al min haa ci ñoom mujarradan fi'al bu ñu rafleel ci ndolleen fi'al yi nga wax ne dañoo nekk ñetti araf nee na ci misaal yi boo ko dee xool ku ci nekk mboolem araf yi ci nekk cosaan la ca baat ba ni ki fex yi ma da ngay wax ne faaga ak xëga ak miim nga lu ca nekk cosaan la ca baat ba ba agsi ci hadiba nga ne hadiba xaalonku gi ak daal ga ak baaba yépp arafu ca nekk cosaan la looy xamee cosaan la mooy yetti araf ya woo ca dagg la des du matati baat araf woo dagg ci yooyu la des rek du firéet dara dara ni ki fahima ci misaal boo daggee faaga mu des xima tu la joxati men max naa xamala boo daggoon xaalong mbaa miim mbaa laam la ca des du mat benn baat du joxe men max naa loolu ci ngay xamee ne kon ci ngay xamee ne araf ya fa nekk yépp araf yi cosaan lañu maanaam boo bëggee xam baat ndax araf yi yëpp cosaan wala déet dangay xool ba xam am na ci woo xam ne boo ko daggee mu des lu mat max naa moo mën a jàpp wala déet bu fekkee araf yëpp yow woo ci mën dagg rek lees ci baat ba du matati menn max naa xamal ne kon araf yëpp cosaan lañu wa isa ta'ammalta boo seetantalee am silatal xismi misaali xaaj ba ak saani bi aj ñaayal ra'ayta nga gis ne anna kulla fi'alin naka bépp fi'al fiihaa ci ñoom huwa moom nafsul fi'ali mooy jëmmi fi'al ba ëllësi ba nga xam ne fi misaal nekk na ci misaal ma al muqaabil may aji tolloo lahoo ñeel ko wala nga ne al muqaabil may aji jàkkaarloo lahoo ñeel ko maha siyaadin ànd ak ndolleen fal am silatu misaal ya al salaasat yet yet al ula ya jëkk siida yokkeef na xalaa kulli fi'alin ci bépp fi'al min haa ci ñoom xarfun aw araf xalaa xuruufi yi ci arafam ya al asliyati yi ko jóg cosaan nga xool nag ba xam sa téere lu mu def ki dafa def xalaa kulli fi'lin fiihaa nga xool ba xam daa def min haa waaye maanaa mi moom du tax mu soppiku fal xamsatu xamsa ga zaidatun aj yokku la fii afhama ci afhama wal mi mu miim ga zaidatun aj yokku la fii xammala ci xammala wal alif alif ga zaidatun aj yokku la fii laaxaba ci laaxaba nee na boo xoolee ci ligne bi ci càmmooñ moom la jublu ci misaal yi xaaj ñaareel bi da nga gis ne fexeel ya nga gisoon ca ndeyjoor ñu ñëwaat waaye nag bu ñëwaatee fii càmmoñ moom ku nekk da nga am ndolleen boo xoolee yett yi jëkk te mooy fahima ak xamala ak laay ba boo xoolee ca fañ jàkkaarloo ci càmmooñ benn la waaye nag fu ca nekk am na ndolleen ndax fahima yokk nañ ci am sa muy ëf xama xamala yokk nañ ca miim gañ sàdd ca miim nga fa nekkoon ci digg ba mu soppiku xamala laay ba gannaaw laam dañ caa dolli alif gu ko bijji muy laaxaba kon foofu ci nekk am na benn dolleen wal amsilatu misaal ya alxamsat ya di juróom allati ya nga xam ne baax daxaa nekk na seen gannaaw siida yokkeef na xalaaku xalaa kulli fi'il ci bépp fi'al fiihaa ci ñoom xarfaan yaay araf xalaa xuruuf yi ci arafam ya al asliyat yi ko jug cosaan fa maraton aw yoon tekkoon dana nekk asiyaadat ndolleen la bil xamsati ci xamsa wa nuuñ ak nuun wa maratan beneen yoon bil xamsati ci xamsa wa taay ak taa wa saalisat yoonu ñetteel bil xamsati ci xamsa wa takraari xarfin ak baamu araf asli ñu ko jug cosaan wa raaju xatan yoonu ñeenteel bittaay ci dolli taa wala alif ak alif wa xaamisatan yoonu juróomeel bittaay ci taa wa tadxiifi xarfin ak ful araf as lii ñu koy cosaan nee na boo delloo ci juróom misaal yi nga xam ne ñoo topp ci yett ya woon ca kaw da nga gis ne moom it mboolem juróom misaal yi ku ci nekk na meloon ca ndeyjoor doon yett tey yokku nañ ci yaari araf boo xoolee in dafa dafa doon dafa kese boo ko defee in dafa yokk nañ ci njëlbeen gi am saag noonu kon foofu am saag noonu moo fi ndolleen fa nekkoon dafa dafa soppiku irtafa at bi ci mujj jëru cee boole moom ndax day mandargam jigéenal rek ak raayot bi ci kanam rek moo tax irtafa rek ngay xool yokk nañ ci am soos lu bi ko tàmbali ak taa gi ngay xool ci biir rafa rek ci la bàyyi ko eh marra dañ ci yokk am sa gi ci njëlbeen gi ak raa kañ sàdda ci raaga nekkan cosaan ndax xam xamira raa gi sàddawutoon te léegi i mar na dañ koo sàdda raagañ ci sàdda ndolleen la ak am sa gi tadaara ba boo ko dee xool tadaara ba bàyyi ko ci dara ba dañ ci yokk taa ak alif gi bijji daat gi yokk nañ ci alaf muy taa ak alif googu bijji taxasana dañ ci yokk taa ak sàdd gi ñu sàdd siiw suwoo si xasana képp la woon kon boo defee taxasana yokk nga ci yaar araf muy taagi ak sàdd nga sàdd sin soose wal misaalaan yaari misaal ya al axiraan yi aj mujj siida yokkeef na xalaa kilal fian lay ni ci képp ci yaari fian ya fii himaa ci ñoom ñaar salaasatu ahrufin ñetti araf yee ñoom alhamsatu mooy hamsa wa siin ak siin wa taaw ak taa maratan ci aw yoon wal hamsatu te mooy hamsa wal waaw ak waaw wa tadxiifu xarfin ak ful araf as lii ñu ko cosaan uxaraat ci beneen yoon boo xoolee yaari misaal yu mujj ca ndeyjoor dafa doon ñett dañ caa yokk na ñett mu juróom benn ndax radiya gërëm na dañ ko defee istarda istarda nag am na yett ndool ni muy alif ak siin si ak taag yett yépp ndool nañ ci radiya rek la bàyyi ko woon xadiba itam boo ko xoolee biñ ko defee ih daw daba am na yetti araf ndool ni muy am sa gis njëlbeen gi daal gi ñu baamu tam doon genn daal ñu indi ko yaar yoon tey ak waaw googu nga seen ci biir amutoon ci xadiba yett yooyu moo ci ndooleen wa isaalam yëkkun ndéem nekkut al fi'lu fihal ba maad yan di maad wa arabta te nga bëgg an taarifa nga xam ahuwa ndax moom mujarradun day luñ rafiyal ci ndolleen am masilun am day luñ dolli farut daxoo kon nanga ko delloo ilal maadi jëm ci maadi ma su manzur topp nga xool fii ci moom su fekkee fexal bu nekkul maadi ni ki day mu daarif mbaa muy lamar nga bëgg xam ba xam nag am ndolleen am amu ko kon da ngay delloo si siixatul maadi ngay delloo si tagguk maadi ga xool nag ba xam su amee arafu ndolleen dana ca feeñ bu fekkee amu ko itam nga xam ne amu ko léegi boo gisee yaarifu dana xam fi mu daarifu wala inrif xamal da ngay delloo si rek xarafa xarafa moom sulaas ju la yett yëpp cosaan la waaye boo gisee iktasib fàggul wala taxallam xamlul muy lamar mbaa nga gis yataxallamu muy mu daarifu soo bëggee xam am na ndoole da ngay delloo si almaadi ya taxal la mu soppiku taxal lama iqtadir soppiku iqtadara su boobaa nga daal di xam ne ñoo yëpp am nañ ndolleen ku ci nekk masjid nga bu dee ci taxal lama am na ndolleen na taaj njëlbeen gi ak sàdd nga sàdd laam nga ca taxal lama iqtadara am na yaar ndolleen am sa gi nga tàmbalee ak tàgg nekk ci biir ndax mi ngi bàyyi ko woon ci xadara kon ñëw na ci takk-takk yi al fi'lu fi'al al mujarradu bari buñ raf leel ci ndolleen maa mooy ba nga xam ne kaanat nekk na jamihu hurufihim mboolem arafam ya asliyatan di ko ji cosaan di ko ji cosaan boo léegi ñu wax rek al fi'lu al mujarrad mooy fi'al boo xam ne araf yi ci nekk yëpp rek yëpp dañoo cosaanu ca baat ba nga xam ne woo ca daggoon rek la des ca baat ba du amati menn maanaa al fi'lu fihal al masiidu bari biñ dolli maa mooy ba nga xam ne siida yokkeef na fii ci moom xarfun wenn araf ak aksaru mbaalu ko ëpp xalaa xoroof yi ca arafam ya al asliyati yi ko jug cosaan boo déggee al fi'lu al masiidu mooy fihal boo xam ne arafi cosaan ya dañ caa yokkaat wenn mbaa yaar mbaa yett waaye moo yëmuñu rek ci arafi cosaan ya gën gaa nee yokk nañ ca benn mën nañ caa yokk ñaar nag bàññat mu dem ba juróom-benn juróom-benn moom mooy yemukaayu bari arafi fexal fexal mënu koo weesu. ak tulaasi yu tulaasi yu yekkoon dana nekk machine am di lu ñu dolli fii ci moom xarafun wenn araf aw xarfaani mbaa yaari araf aw salaasatu ahrufin wala yetti araf takk-takk mooy nga ne fexal boo xam ci saanam ñett la woon ñetti araf la woon mën nañ caa yokk benn muy ñeent. mën nañ caa yokk ñaar mu juróom mën nañ caa yokk ñett mu fekk fa ñett mu juróom benn waaye nag foofu mooy yemukaay bu moom mënu su ko weesu dafa toll ci attaani mujarradu rubaax yi mooy lu rafleeni rubaax yi wa masiduhu ak lañu dolleem day wax nag final boo xam cosaanam ñeenti arox la woon biñ ko dee dolli nu muy demee fekk wax na ba noppi nag daxal bu nekk ñetti araf ci cosaan bañ ko dollee nu mu demee mu jëkki al am silatu ba sara tasaare na al hawa u ngelaw li al waraxa xob ya wala këyit ya wa defee al waraxatu def ci taa da koy def benn wenn xob mbaa wenn këyit boo dindee taaju nag daal nekk ismi jins yóbbaale xeetu xob muy ay xeeti xob mel ni mbooloo soo defee alwariq nag tasararaa gi mooy soppiku xaalis alwariq mooy xaalis baasara boobu mool bi daa juum sàddaraa gi nga bañ koo wàññiwaale sàdd gi mu ko sàdd ba mu lay juumloo baasara rek la muy ñeenti araf mu def ci kanam nag te baasara tasaaroo na alwaraxu xob ya xarjama dajale na arraahi aji sàmm ja al ibila gëléem ya mu def ca kanamam ihran jamat dajaloo na al ibilu gëléem ya tam ana dalal na xel ak tabibu médecin ba al marid aji tawat ja mu def nag mu jàkkaarloog moom itma an na dal na am xel al maridu aji tawat ja misaal yaa ngoog mu ñëw ci albaas am seetul xismi misaali xaaj ba al awali bi aji jëkk tosh tamilu danañ làmboo xalaa af xaalin ci ay fexal maadi yët ni ay maad rubaahi yët ñi ko jug ñeenti araf rubaahi yëtin wa kullu fexlin te bépp fexal min xaa ci ñoom xuruufu arafam ya as li yëtun ko jug cosaan lañu itaaxu si fandeem dogeef na xarfun wan araf min xaa ci yenti yooye rek ixtal la xët lafzul fexli baatu fexal ba wa maanaahu ak maanaam ba yee ñoom isan kon af xaalun ay fexal lañu mu jarra datu yu di ñu rafleel ci ndolleen boo xoolee ci ligne bi ci ndeyjoor yetti misaal ya fa nekk ku ci nekk am nga fixlul maadin moo xam ne ñeenti araf la te ñeenti araf yépp cosaan lañ ca baat ba la ngay xàmmee ne cosaan lañ ca baat ba mooy araf ya woo ca daggoon rek la des ca baat ba du amati maxnaa maxnaa ma day yàqu baat ba yàqu mbaa boog dana firi lool lu soreek li baat doon firi bi nga ko defee ñeenti araf mel ne xarjama dajale na dëgg la sax boo daggoon xaaloon ko mu des rajama dana mat baat waaye dana soreek li xarjama daan firi baax sara boo daggoon baaba def xasara dana firi fakkastal waaye gis nga ni muy sorenteeg baax sara bi firi tasaare kon li ñuy xàmmee ne fixilul maadin mi yenti araf yépp cosaan lañ mooy araf woo ci dagg rek baat ba yàqu du joxeeti menn max naa muy xaw a nuróonteeg ma ca cosaan woon amma am silatul xismi daal misaali xaaj ba ataani bi aj ñaareel fa tosh tamit danañu làmboo xalaa af xaalil xismi ci fixaali xaaj ba al awali bi aji jëkk nafsiha seen jëmi bopp maha siyaadatin ànd ak ndolleen xalaa kulli fialin ci bépp fixal fattaawu taaga masiidat mu ñu dolli la masiidatun fi taba sara ci taba sara wal xamsatu xamsa ga wan nuun ak nuun ga masiidataani yaari ñu dolli lañu fi ixran jama ci ixran jama bi max na ji tama ci maxnaam iji tama dajaloona wal xamsatu xamsa ga wa tadxiifu nuuni ak ful nuun ga maanaam sàdda nuun ga siyaadatu ndolleen la fitma anna ci itma anna daa wax ne boo xoolee ci càmmoñ da nga gis ne fixal ya nekkoon ca ndeyjoor ñoo ñëwaat foofu waaye nag fu ca nekk am na ndolleen ndax bi ngay njëkk a jot dañ caa dolli taa dafa nekkoon ba sara nga dolli ci taa muy taba sara ba ca topp dafa nekkoon ñeent nga dolli ci yaar mu juróom benn dafa nekkoon xar jama nga soppi ko ihran jama xam ne am na am sa njëlbeen gi muy ndollin ak noon gi ngay séen ci biir te amu ci woon ba ci mujj dafa nekkoon rubaax yu tam ana nga tëgg ko li ñu wax ifan lal la muy it ma an na mu daal di am yaari ndolleen mooy am sa gi nga tàmbalee baat bi ak noon nga nga sàdd ca mujj ga te ca bu njëkk sàddawutoon alqaidatu li mooy takk-takk bi masiidul rubaax yi lu ñu dolli rubaax yi takkoon takkoon dana nekk siyaadatu hoon ndolle nam la xarfan di wenn araf aw xarfay ni mbaa muy ñaari araf kon mën ngaa takk ne fexal bu nekkoon ñeenti araf ci cosaan boo dee yokk mën nga caa yokk wenn mu juróom mën nga caa yokk ñaar mu juróom benn waaye mënu caa yokk ñett nag moom mu juróom ñaar ndax fexal la gën a bari ci arafam du mën a weesu juróom benn ba cosaan la nekkee ñett moom daa nga mën a yokk wenn muy ñeent daa nga mën a yokk ñaar mu juróom daa nga mën a yokk ñett mu juróom benn waaye nag cosaan la nekkee ñeent moom benn moo mën a yokk mu juróom mbaa nga yokk ñaar mu juróom benn tam yem foofa ñëw ci tamarin yi التمرين الأول رد نغا ديلو ما لا nga xamne fi la ibarat nek na ci wax yi al atiyati ak dik min al afhal ci ay fi'al غير الماضية ينكل أي ماض إلى الماضية جميل أي ماض وبين تنغليرال المجرد بنو رفلل ci ndolen wal masjida ak bañu dolli min jamihil afhali ci mbolem fi hali wal hurufa ak arafiya as sa'idati aj yokku fi kulli masjidin ci lepp lañu dolli do bëgg andil ay wax yo xamne da bëgg nga xol ko fi hal bo ci gis te nekul maadi nga delo ko ci maadi boko delo ci maadi nga wax nak ba xam am na ndollen am amul ndollen su amé ndollen boole ci leral araf yi ci dolliku bañ xàmmee ko ya ca cosaanu yaxtaaju dana aajoo al insaanu nit bi tabixatihi ci nattiiram ila naw mi jëm ci nelaw faye ji dana war xala tilmi fi ci elew bi an yoo xajjina muy gaawe bii ci nelaw fi awali leyli ci njëlbeenu guddi ga li yastayqida ngir mu yeewu mu bakkiran mbir mi ñu aji teele yeewu ga fa innahu naka moom in ataala bu yàggalee assahara fogga fog mooy ñàkk nelaw daaw fa kon doye di gis buhu yaramam wa xaqluhu ak xelam wa yaxsunu dana rafet allaa yanaama mu bañ a nelaw xaqibal akli ci gannaaw lekk fa inna dalika naka loolee yu sabbibu dana sabab al axlaama gént ya al muxiifata yi aji ragalloo wa yaduru te muy lor al maidata bàq ga aw baxda an yastadkira wala gannaaw ba mu toppaatee duroo saxoo bindam ya mubasharatan directement mooy fa saasay saasa wa illaa ndéem déet lam yatamatta du bànneexu biraaxati naw mi ci noflaayu nelaw wa yambaxi dana yell an yaxsi la mu raxas jismaxoo yaramam wa yusi la te muy dindi maa la nga xam ne xaliqa taqna bi ci moom minal aqdaari ci ay xeeti sobe wa an yuxattiya ak muy muur gismaxoo yaramam wa fi shitaay bu dee ci jamonoy sedd bimaa ci loo xam ne yudd fi uhoo dana ko nuggal dana ko tàngal xataa laa yaq shahira ba du kotombu minal bardi ngir sedd ba nit ni ko yàlla bindee mënta ñàkk a nelaw kon bu dee kuy jàng moom nay teel a tëdd di teel a yeewu ndax bu dee ñàkk nelaw lu bare bari yaram wi day néew doole xel mi néew doole te it nay moytu lekk ba noppi daal di tëdd fa saasa sësale lekk geeg tëdd gi nelaw loolu day tax muy gént gént yoo xam du koy tiital te it du baax ci biiram mooy du baax ca bàq ga nay moytu ba tey toppaat ay bind mën a fi saasay saasa daal di nelaw teg ci fa saasay saasa loolu bu ko defee li ci ëpp du nelaw nelaw yu neex nay farlu ci di raxas aw yaramam ba muy set lépp luy sobe koy dindi daray sobe bañ koo taq bu dee jamonoy sedd muy fexe bay sol lu dëll luy tax sedd bi du ko gaañ ba deru yaramam di am ay kotom kotom bu jamoy seet daal nay sol lu am ab talaay nay sol lu talatal daal loo xam dana ko fegal sedd bi at tamrin ab taani maa xuruufu siyaadati lan mooy arafi dolli ga fi kulli fialin ci bépp fial min al afaali ci fial yi al aatiyati aj dikk lay bëgg andi ay fial yoo xam ne yépp am dooleen amu ci benn boo xam ne araf cosaan rek moo ci des mu bëgg nag nga wax araf yi ndolli ni istaqbala teeru na mbaa jublu na foo ko fekk alif sinta moo ci ndolleen ixdara wart na foo ko fekk am sa gi moo ci ndolleen am sa gi njëlbeen gi ak raaga nga sàdd ca raaga xadira moo ci cosaan dafa xara damonte na am na yaari ndolleen muy taagi ko tàmbali ak alif gi bijji faa gi faxara moo ci doon cosaan iyan shaw shaba naat na mooy sëq na ñax mu tooy foo ko fekk am na yetti araf ndollen am sa ngi ko tàmbali ak waaw gi ngay seen ci biir ak sin bu tooyu ñaareel bi benn sin bu njëkk bi rek benn sin bu tooyu mooy ci saa waaye bi ci des moom ndolleen la in xadara bartandiku na am na yaari ndolleen am sa ngi ko tàmbali ak noon gi xadara mooy cosaan in taqala toxo na naqala mooy ci cosaan am sa gi ndolleen la te ak ngay seen ci biir ndolleen la umrin attalis ijhal defal al afhaal fihaliya al masidata yariñ dolli al aatiyata aji dikk mu jarra datan ñu luñu rafleel suma da topp topp nga teg talaasata afhaali ñetti fihal mu jarra datin yu ñu rafleel fi jumalin mu fi datin fihal yi ngay siyam bu ci nekk am na ndolleen daa bëgg nag ku ci ne nga delloo ko ci cosaan la ba noppi nag tànn ci yett tànn ci yett bu ca nekk nga jàll ak moom ba wax ba daanu taxal la ma xamlu na mi ngi bàyyi ko ci xalima in sarafa walbatiku na bàyyi ko ci sarafa baaxaka reexante na bàyyi ko ci daxika isma azza fañ na daa bàyyi ko ci rubaayu sam azza akrama teral na bàyyi ko ci karuma ihtafaza garde na bàyyi ko ci xafiza nga xool at tamrin arabi ijhal al afxaala al mujarradata al aatiyata masidatan summa da topp nga teg salaasata afxaalin masidatin fii jumalin tamma fial yi ñëw fii moom juróom lañ waaye yépp amuñu ndolleen amu ci kenn ko am ndolleen daa bëgg nag ku ci ne nga seet ba xam boo ko doon dolli noo koy dollee ba noppi nag nga tànn ci yet bu ca ne nga andil ko faaxil mbaa mafol da yokku nga dem daal ba yett yooyu moom ku ca ne wax ba dem ba daanu xëddama màbb na mën nga koo soppi xëddama sàdda daal gi mën nga koo def in xadama boo bëggee mu lazim saxiba àndoonte na mën nga koo def saaxaba mën nga koo def istaxaba mën nga koo def tasaaxaba salima mucc na mën naa doon sallama mën naa doon aslama mën naa doon istaslama daxaraja bërëg na mën naa doon te daxaraja sharufa tedd na mën naa doon sharafa ci sàdd raagi ashrafa sax dana koy doon nga xool attamrin alxamis alxiq yéegalal bi kulli fixilin ci bépp fixal min al afhaali al aatiyati kullama lépp loo xam ne taarifu da nga xam ne annahu naka moom yaqbaluhu dana ko nangu min xurufi siyaadati ci arafi dolli ga fi xale yi ngay seen juróom lañ waaye ku ci nekk yett la yett yépp di cosaan mu bëgg nag nga xool ku ci nekk boo ko doon dolli lu ñu nangu ci xeet ndolle ni lu mel ne xaraja génn na nangu na nga ne axraja nangu na nga ne istaxraja nangu na sax xarraja fataha ubbi na nangu na iftataha nangu na istaftaha nangu na faataha taala gudd na nangu na istataala nangu na ataala qadaa atte na nangu na istaqdaa ko defee juróom benneel nangu na qaadaa muy faax la sadaqa dëggal na nangu na saadaqa nangu na sax asdaqa waaye su boobaa mu ameen maanaam mu wuteeg ma nga ca xamoon léeg-léeg nga xool nag at tamarin astadis moom it def ko hamsatal wasli ñaari am sa yoo xam ne genn ga waslu la wal xatax nga ca des xataxu la dafa am ñaari xeeti am sa yoo xam ne bokkuñu am satul wasli ak am satul xataxi mu bëgg leen a tàggale al am silatu samiatu dégg naa ad darsa leçon ba fanta baxtu te ma yeewu ñu bind ci kanam intabaxtu yeewu naa li darsi ñeel leçon ba jarabatu nattu naa asadiqa xarit ba waxtabartu foote ma nattu ko ñu bind fee ci kanam ixtabartu nattu naa asadiqa xarit ba ida samita boo déggee ad darsa leçon ba fantabix na nga yeewu intabix yeewul li darsi ñeel leçon ba intabix yeewul li darsi ida saadaqta ndéem xaritoo nga faxtabir na nga nattu ñu bind ci kanam ixtabir natul as sadiqa xarit ba surirtu bëggaleef na ma minin tibaaxika ci sa yeewu mooy ni nga yeewu bëgg naa ci ñu bind ci kanam intibaaxuka sa yeewu sarrani bëggloo na ma yorafu def na xame as sadiqu xarit ba bil ixtibaari ci nattu ga ñu bind ci kanam ixtibaaru sadiqi nattu xarit ba minal xasmi bokk na ci ak takku boo bëggee xam sa xarit ba xam xarit ga wér naam déet da nga koy seetlu bu baax ñu bind ci kanam seetlu xarit bi bu baax day bokk na ci ak takku wane ne nit ki ku takku la ku mën a taxaw ci mbir la na mu yellee man istamsaka ku jàppandu bil xaq ci dëgg faasa mu texe ñu bind fee ci kanam istamsakatu jàppandu naa bil xaq ci dëgg xalimtu xam naa bi na jaaxi ci sama at mi fastab shartu te ma bég ñu bind ci kanam istab shartu bég naa bi na jaaxi ci sama at mi xul waxal alxaq bi